Ah an bi kum ginnaaw xoddeeku njiiti réew mi Macky Sall ñàkk na réew mi tere na benn abiyon dootu naawee France dugg Sénégal naka noonu réewum Italie Espagne Portugal Belgique Algérie Tunisie ci lu tolleeg fanweeri fan abiyon du jóge ci suñu réew mi dem ci juróom-ñaari réew yooyu te ñoom it abiyon du jóge seen réew ma dugg suñu réew mi àllarba suba ji bu mu nuy jotee ci la dogal bi di tàmbali les écoles yéen a moo ñu xamal na dogal bii la njiit réew Macky ak ceenu jàngoroy korona gi wàllaate lëmbee àdduna bi si du quotidien dëggal ko ne makki tëj na suñu aéroport ba jëm ci juróom-ñaari réew te mooy yéene kaay na makki fa léem ñàkk wër ndom ba réew mi bañ bu fi jàngoro ji duggati moo tax suñ frontières yi yi ci kaw asamaan si jaww ji réew yi nga xam ne jàngoroy korona ja fa la ëppee ci àdduna bi makki ne na leen xalaa ma ndir bàjjo xalaa xalaa du ngeen fi duggati doy na sëkk critique yéene kaay na makki dagg na buum ga te fekk tamit lim def jaadu yow seet tal su fekkente ne ñu ngi xeex jàngoro ji ñim dal Sénégal ak bañ mu law fi ba pare ñu bàyyi avion yi nit ñi di ko jëlee bitim réew di ko dugal ci réew mi kon kay jàngoro ji du mos a jeex firnde li mooy démb Sénégal am na ab tubaab bu dëkk France dugal na fi doomu jàngoro ji fi mu toll ni am na ñaar fukki doomu aadama ak juróom-ñaar yoo am jàngoro ji laas yéene kaay na aéroport Blaise Diagne moo bëggoon a nekk lantinoor bi rek daal fa lañ doon jaa di dugg di ci wasaare jàngoro ji ndax képp kum dal ci réew mi rek kala bu bees bi amaat corona foofu la jaaraat moo tax Macky nag ne lu frontières yi moo xam géej gi la ak jaww ji Karim Wade na ko président man de d'accord naa ak yow dogal yi nga jël ànd naa te maa ngi solidarité ak askanu Sénégal kàddoom yaa ngi ci le quotidien yéen a kaay l'évidence yéen a kaay ne hee waaye def leen ndànk de li Macky def nii tëj frontières yi avion yi xam na fu mu baax waaye xam na fu mu bon de ayaw seet tal ngir xeex jàngoroy corona gi baax na trop sax waaye nag koom-koomu réew mi baaxut ci de boo moytu danañ dem ba nit ñi duñ am luñ lekk ndax ñun Sénégal li ñuy dundee bitim réew lañ koy jëlee suñ tëjee suñ frontières yi dara duggatut dara génnatut te ñun xamuñ dara loolu mooy na xay nar na ñoo xenu les écoles yéene kaay na ko ñi xay nar a dëgg dëgg dëgg mooy artistes yi waykat yi seen soirée yeeg concert yeeg dara xamatut naka noonu mbër yi doon bëree lamb ji dara xamatut kon affaire dana métti ci ñoom nay leneen lu leer ba yegg ca naan ñi jàk mooy na ay milliards yu bari la Sénégal nar a ñàkk ci mbiru coronavirus bi suñ koom-koom bi Moustapha Diakhaté moo ko wax Le Soleil yéen a kaay mel ni ku naan ko waaye jàngoro ju bon ju garaaw ji di rey nit ñi ci àdduna bi lu ko fi jëlee lépp luñ def baax na ci moo tax Macky caaxaanut ci de Dakar Times na lii kay musiba naaru laay la mbas moo xam ne àdduna bi yëpp a jaaxle kenn mënu ci dara moo tax entreprise yi nekk ci réew mi war nañoo dimbale nguur gi de turbine yéen a kaay ne waaye li ma ci jaaxal Macky tëjut frontière ci suuf si oto fi ñu jaar ak tànk nit ñi foofu gaay mën nañ faa jaar de source yéen a kaay ne takk der yi nag ñoom caaxaanuñ de dogal bi njiit réew mi jël fépp fu ñu dégg xew-xew fu nit ñi dajaloo ñu dem tasaare ko soo bañee ñu jàpp la a yaaw am na commerçant bu ñu wax Abdoulaye Fofana jàpp nañ ko naka noon ca diiwaanu Mbàkke sandarma yi dañoo dem fekk ñu fay amal anniversaire bu mag ñu tas ko jàll ci daayira bu mag dajaloo ñu tasaare leen waa grand place na ko ma yokkal la ci ñi doon wax ci internet bi naan coronavirus amut Sénégal affaire caaxaan caaxaan la xam nga waxoon nañ leen démb ne jëwriñ ji ñu yaram fa porte plainte takk der yaa ngi wër gaañ yi am na ñun ci jàpp ayaw ah, jàng Abdoulaye Mbaye Péex moom fa waxoon ne coronavirus amut Touba ay kompaloo la saboote yoonu murit ak te su fa amee sax ku tedd ki dana ko génne waaye amut ay sos la sandarma yi nag woolu ko démb na ko yow lan moo tax nga wax li nga wax mu ne leen ah ñu ne ko dégg nga li ñu wax kay nit ñaa ngi jaaxle président Macky Sall jël ay matuwaay kilifa diine yi d'accord ci nga taxaw di wax lii saboote la wala fontoo nit ñi mu ne leen est man nii laa ko waxee est-ce que journaliste yi soppiwuñ sama wax ji ñu tegal ko vidéo ba mu ko waxee woon mu commencé jàq jaaxle tiit boole ca na leen tuub naa ko te billaahi dootuma waxati tëj naa sama gémmiñ gi ndax li dëgg la corona mi ngi Touba te danaa bokk si ñuy ñaax askan wi xamal leen na am na ñu ne ko waa demal buñ déggatee nga wax li ni mel mu ne leen du ngeen ko déggati Selbé Ndom tamit xam nga ay dóor rek ci lay dox wax lu du dëgg gis naa lii ak wan nañ ma lii ak lii xamut ak sarax bii ngay def ak lépp ngir dóor xaalis léegi nag fa wax ci coronavirus bi moom it takk dere oolu ko convocation Selbé ndoom daw dugg ci xàll bi ba pare fay portable bi te takk dere yemuñ fa de mboolem ku ci wax ñu ngi lay wër nay leer laneen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy na dogal bi njiitere Macky Sall jël tëj frontière jaww ji gàllankoor suñ koom-koom lu askan wi dundee l'observateur moo ñu ko xamal ne fi mu toll nag jàq jot na si jamono joo xam ne ñi xam jàngoro ji mi ngi gën a yokk ci réew mi tàggat yaram Sadio Mané yëkkati na fanweeri million suñu xaalis dimbale ko nguurug Sénégal ci xeex jàngoroy coronavirus gi record yéen a kaay ñu ko xamal stade na ko coronavirus boo mooy tuut euro 2020 ak JO 2020 yëpp danañ ko toxal tey ci talaata ji lañ ciy waxtaan la mu wax moom Gaston Mbengue ci sunu làmb mooy ne mer naa ba futt am ma naqari ndax làmb ji fa Alioune Sarr nee na bu bàyyee làmb ji làmb ji dana am ay problème de nay leer nen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy ne Khady Diouf xale bu jigéen bi wannoon lor te ñu rayoon ko ca Thiès ma wax leen ko fi démb ka ko ray janoon na ak takk derya na leen maa ko ray ba mu dee ma koo xoj ak buum libération moo ñu xamal ne Assane Fall la tudd nangu ne ne moo ko ëmbal te moo ko rey takk dere na waa lu tax rey ko muy leen man maa amutoon pexe di ndax moom ma koo ëmbal ba pare muy wax naan maa ko ëmbal ma ne ko déedéet wax ko fa yàq sama der ndax sëriñ bu mag laa kon fa ngay yàq sama der yàqale sama deru baay lii de moo tax ma rey ko ay waay ndaw sàmba waa ma ne ana sharia bu xaate woon de fañ koy rey rek mu jeex de gàccey damaa hëmbal xamut benn pexe lu mooy téye sa bopp gàcce ga nga doon bañal sa waajur wa gu ndaw la woon waaye léegi nag jox nga ko bu mag ponkal mi